suba le Sénégal di football day mel ni match bi tey la ndax ASC Lébou gi day def lépp lu si war li ngeen fi lu la par rapport ak Lébou gi li a def si stade bi si kanam gis ngeen leen depuis ñu ñëw képp ku dem stade daf leen di remarqué ndax ambiance chaque veille de match dañuy def li ñoo xam dañ koy sàcc def ambiance yëngal depuis sànq Euh, yeneen nationalité yi ñu ngi ñëw di xool lan moo fi xew parce que lan ASC Libu gi fu mu nekk dafay yëngal gars yi xam ne daal ASC Libu mu ngi fi donc ñu ngi nii ak euh, suñu tata moo ñu tey voilà maman moo ñu tey lii la moo ko waral euh, waa tubaarkàlla dañuy sant yàlla bu wér di sant yàlla bu wér dama koy wax ñetti yoon macha allah fàttilan di wax ne li fi xew tey yàgg naa xew si fa la daan xewe pencum dàngo pencum dàngu jur ASC lébu gi ñuy ambiance Tëngéej di ambiance Dakar di ambiance si région yi ba tey tubaarkàll yu ñëw kataa di ambiance tey li fi xew mu ngay xew lu mel ni tubaarkàll fee sa dàngu fanu jóge ñëw fii ñi nga xam ne ñoonu préparé yebal na nu ñëw fii na ni lu nu toog di ka sajj ñoo it ñu nga yëg rëkk fee defe naa la ñu teg ci baafu tey bu ñu ko yëngalee Sénégal dina yëngu. li ngeen yëngal nii jàpp ngeen ni yàggul Sénégal. dee axa ah kay wër na àdduna fi mu ne ni ñun li ñu yëngal dafa wër àdduna mais lépp lu ñuy def fii waa daangoo koy def tamit di ko yëngalal waa Sénégal dama ne lépp nag bu nu ko defee di góorgóorlu di wax ñi di fecc ñi di way ñun mag ñi ñuy yëngu li ko war a lan la mooy dañ ñu tànn si li ñu tànnee bi ñu ñëwee dañ ko war a wane nuy fanweer nag tubaar tubaarkàll la ñu yëngu ba mel ni téeméer sant yàlla laf cat parce que nag nee naa xale yi li tax dañu naan dañuy am lu ñuy naan wala li tax duñu sonn mooy dañuy doxe xol di jëfe xol di fecc xol ndax amul lu dul Sénégal fierté Sénégal moo nu tax a jóg te nii lañ leen di gunge nuy gañe di gañe ba gàddu ndam li ci macha allah yóbbu ko Sénégal ci kàttanu yàlla. lan ngay wax ci match bi lan ngeen waajal pour match bi. nga xam ne suñu diggante ak Équateur la. li nu waajal suba dan daan waaj nag waaye gën na noo waaj. ndax wajna nañu sajja waaj na si affaireu lebu yi yeungal nañu xamba yi tubarkalla oo nanu guy yi wax nañu ak ñom eh. ndax suba mars capital la eh, suba delloo len avance bi dañu suba suba dañu wara gagner inshallah yalla nak mo yor ndam di ka may ko ko neex nak waaye nun sañ na ko sañ ñaan suba mu may nu ndam gaal ñu ay ndam ñu ci tegi ndam ba gaddu ko ba yobbu ko senegal yalla mën lu upp lolu yalla nanu ko yalla defal ci barke bu tedd bi nanuy nanuy ñaan Ken xamul ban gémmañ mo am kon nanuy ñaan ndam lañu bëgg lu sedd guuy and ak wër ak wër ñu taxawaat fi heure bi suba di ko fi yalla may ñu ndam ci kantu yalla te jox président Mass mu eggali li ci dess président def ngeen danaka fukki fan Qatar fekkee ngeen ñaari match. te gis ngeen ambiance bi nga xamantene ne ASC Lebougui gi wane nako ko ci si wourna yi na yéen a ngi waajal nag benen match digënté Équateur nak ngeen koy préparer waaw te comme comme d'habitude ñun saa bu ñu ñëwee stade rek dañ indi loo xam ne ku fa teew ku ne di nga xam ne léegi mu ngi fii te saa buy ñëw rek ñu indi un plus. Mhm. premier match am lu ñu am lu ñu ci teg suba dana am leneen lu ci teg. bu suba ak jàmm les sénégalais dañu gis ne ASC see gi ñëwul Qatar tout simplement pour def tourisme. Mhm. dañu ñëw Qatar pour galvaniser le lions. Mhm. pour pousser les lions à la victoire. te incha allah rabbi su wax jàmm loolu sénégalais yi dinañ ko gis bu soobee suñu borom. incha allah rabbi Sadio bi mat na.

une prestation de très très haute facture boo xam victoire moo ci top.